xam ne du réewum jullit la tuuti lañu lay jox fekk benn building rek benn lu ñuy tuddee islamic center rek ca réew ya nga xam ne nooni lislaam lanu la la koy la koy yóbbu la alal ja ñu fay def mën naa mën na bojetu kenn ci réew yi jullit ñi te ñooña ñu nga sonn duñ leen jox dara duñ dimbali jullit ñooña waaw mel ni daal nit koo xam ne danga xiif ñu jël benn yax dóor la ko ci sa bëñ bi sa deret ji eh, di di génn nga mos ko mu mu mel ni lu saf mu neex mu mel ni lekk nga dara loolu la ñuy def jullit ñi loolu du wax te dafa am nit koo xam ne alalam ji moomu ko loolu yàlla moo séddalee noonu parce que yàlla dafa am nu séddalee àddina bi even soo ñëwee ci réew mu ne ëpplante alal jooju alal ji ñëpp a ko bokk waaw mboolem alal juy génn ci réew ña dëkkee réew ma ñëpp a ko bokk basic niit si kenn waru koo ñàkk su fekkee doxal nañ alal ji ci ci ci niñ ko war a doxalee ci lislaam naka noonu àddina bi noonu la ko yàlla balancé even nit ñi gëm noonu la yàlla balancé mbir mi ñu nekk am na lu leen yàlla defal loo xam ne ñoom ñëpp a ko bokk te dañ ko war a dañ ko war a tasaare ñëpp man ko bokk kon càggante googu nga xam ne dal na jullit ñi ci palaas yu baree baree bare te li ko waral mooy gëma di yàlla ak itam oyof ngëm moo ñu ci moo ñu ci dugal loolu quds ca la bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ko waxoon nañu ne yushiku an tadaa alaykumul umam kama tadaa al akalatu ila qasaatiha qaalu amin qillatin nahnu yowma idin ya rasulallah qaala laa innakum kathir walakinakum guthaun ka guthaai sayli ne ni ma gisee seen mbir seen mbir jëmul kër loolu la ñu yonent bi saa sallam waxoon ni ma gisee tànk yi ngeen di doxee da ngeen suloo de waaw li ma gis mooy su ngeen soppihu doxalin bés dana ñëw àddina bi seen opponents yi seen noon yi danañ leen hëngëmloo di leen duma di leen duma te dara du ci génn bal bu jóg ci dënnab jullit lay dal jaasi ju dog loxoob jullit lay dog jullit ñi ñoomu neen ñooy dogante loxo jullit ñi ñoomu neen ñooy xeex ñooy xañante ñooy añaanante ñooy reyante loolu mooy li xew ci jamono waaw ñunu neen ñoo koy def loolu nag dafa metti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu bam ñu dànkaafoo ci loolu saxaaba yi dañ ko laaj ne ko waaw xanaa luy waral loolu luy tax suñ noon yi di ñu duma xanaa day fekk ne ñun dañuy tuuti ci nomba mu ne leen déedéet yéenay gën a bare peppi sànqaleñ waaw da di bare ba comme ni ñu mel tey waaye da ngeen nekk rutha'un ka rutha'i sayli da ngeen di mel ni aw am mboob moo xam ne yol nee koy yóbbuwaale te loolu moo ñu dal tey loolu moo ñu dal tey jullit yaa tur la rek waaye mënuñoo euh, daanaka mënuñoo faslante xànc moroom ka waaw amul benn forum ci àddina bi boo xam ne am nañ fa wéet waaw waaw foo xam ne fukka fa nekk sax su fekkee ne juróom-ñetti jullit lañu ña doxut jullit ñoom ñooy liit lu ko waral parce que alquran daf ñu wax ne wala tanazaau fa tafchalu wa tadhaba rixukum bu leen bu leen xëccoo bu leen xuloo bu leen ŋaayoo su ngeen ko defee da ngeen féel su ngeen ko defee dangeen ngeen néew doole loolu sunnatullaahi la su eboo nga naan ñun ñoo gëm yàlla loolu yàlla yoonam nekku ci yàlla daf la tëralal ay luwaay yoo xam ne soo ko toppul rek da nga gis résolve bi waaw forcé ñu bëggante forcé ñu toppante forcé ñu dimbalante waaw rekk yàlla fonk ñu ñu mën a dëgër waaye feeg nanguwu ñoo def loolu néew doole dong te amul leen loolu su eboo nga gëm a gëm a gëm yàlla ba mel ni abu ni Siddiq waaw waaye yow yaa ko mel téeméer yi meluñu ko lu lu ciy xew hmm? nañu seet lislaam fa mu tàmbale kon su ko defee su fekkee ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rajab mooy bés bi nga xam ne ci la salaaxu diinil ayyubi ca la duggoon baytil maqdis ca la nangu woon baytil maqdis jëlee ko ci loxooy ña ko fëkkoon amee ko juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñett delloohaat ko jullit ñi ñu dem a dem ba jullit ñi càggante dalaat ñu ñu na foqar ñi waat ko ci sunu loxo te foqar ñi gi jeexagut sax dana ñu dem a dem a dem ba nga xam ne kenn sa tànk dootu fa dëggati waaw foofu la ñu jëm te kenn mënu ci lenn dara lañ ci mënu feeg delluwuñu ci fa nga xam ne fa lañ jógee woon feeg delluwuñ ci suñu ngëm yàlla gu dëgër feeg delluwuñu ci óolu yàlla feeg soppantewuñ ngir yàlla feeg bëggantewuñ ngir yàlla waaw feeg xooluloo sa feeg jàppuloo sa mbokkam jullit mi nga xam ne yéen a bokk alquranul karim gëb ko ne mooy seen téere muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy seen yónent feeg jàppaloo ko comme sa mbokk duñ delloo suñ doole ji mukk nag waaye yow su fekkee ne su ma kàbbaree julli yoor loxo kii kàbbar julli Euh, téye loxoom yi sax nga noonoo borom waaw da nga ko noonoo ba nga xam ne su suñ ko doon rey sax kontaan nga ci wala yow sax yaa yow sax yow yaa koy rey yow ci sa bopp yow yaa koy toroxal yow ci sa bopp su nit jàngee salaatul faatixi li maa uxliqa nga bañ koo bañ a bañ ba nga xam ne kii moom fi ne ni du jullit yéefar sax gënal la ko mushrik gënal la ko loolu du wax te loolu problème bi yépp bi bi ñuy dund yépp loolu moo ñu ko yóbbee waaye su fekkoon dañoo jéggalante ci yu sew sewaan yooyu jëflante dimbalante ci li ñu boole te li ñu boole moo ëpp li ñu li ñu teqale konoon ñun ñëpp ñu nekk benn ñu dëgër mhm. waaye néew doole gi yëpp lii moo ñu ko yóbbee su ko defee kon mbokk yi bés boobu di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar na ko nit ñi ñëpp xam ci rajab di weer wii ñu ne su jotee jullit ñi lu mu boni boni boni war nañu ko war nañu fàttaliku baytil maqdis wala nga dem ci bi nga xam ne moom itam ah, ah, yëgle nañ ko ci àddina bi yépp ne ajjuma ju mujj ci weeru koor bu ne at mu jot moom itam fàttaliku la pour baytil maqdis su ko defee bindkat yi bind ci waxkat yi wax ci conférence yi forum si lu nekk ñu def ko ci ndax xel yi dellu ne baytil maqdis ñun ñoo ko moom wax dëgg yàlla waaye kenn sa yoon nehu ci te yonent bi saa salaam dafa wax ne man raa mun karan fal yuxayirhu bi yeddi ku gisati lu bon na ko soppeek loxoom su ko manee na ko dindeeg doole su ko manee su ko mënul na ko dindeeg làmmiñ su ko mënul na ko naqari si xolam yow ma amuloo doole amuloo xam-xam wala boo am nga ko doo ko wax man awma ma xam-xam naqariwu ma wala man am naa doole dindiwuma ko ah, loolu suñ ko defee ñun ñëpp ñu nekk musnibiin waaw ah, dañuy nekk ñun ñëpp ay nit ñoo xam ne dañuy def bàkkaar parce que fardu kifaaya la kon mbokk yi e, ci ñaar fukk juróom-ñaar yooyu ci la loolu xewoon ba tey ñaar fukki fan ak ñeneent ci rajab tombeel ak hundred and téeméer ak benn ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak juróom benn fan ci février ci 720 ci juddu ci e, juddub yonti yàlla isa alayhi salaam ci la alxalifatul amawi omar ibnu abdul aziz ca la oy ji woon boromam Omar ibn Abdul Aziz ñépp xam nañu ko moom la ñuy tuddee xaamisul xulafa ar-rashidun mooy juróomeeli ñeent yi jiitu woon te jub nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo leen seedeel seenu njub muy Aboubacar ni Siddiq Omar Ousmane eh, ak Aliou ñoom ñoom la ñuy tuddee xulafa ur-rashidun ñu ne fala la yem de déedéet képp koo xam ne jaa baadahum xalifatan wa kaana rachidan kon fa huwa xalifatun rachid waaye suñu tuddee xulafaa u rachidun ñeenti ñile moom la xel di daj te parce que ñoom la ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam tazkiyal waaye suñu ñëwee ci Omar ibn Abdul Aziz nga xam ne dafa ñëw gannaaw euh, juróom ñett juróom ñetti xalifa wala juróom ñetti buur duñ ko tuddee xalifa su fekkee ci luxa la ñu tuddee ko xalifa rek mooy ku wuutu waaye ci ci xaqiqa ci practice buur lanu gannaaw bu daw dawla amawiya taxawee juróom-ñetti buur ba ñu paasee mooy Omar ibn Abdul Aziz mooy juróom-ñetteeli buur waaw mu nekkoon nit koo xam ne ndëng gi nga xam ne moom la fa fekk caaxaan gi nga xam ne moom la fa fekk dë dëddu dëddu yàlla gi nga xam ne moom la fekkoon banu umayya di ko def moom moo delloo si dëgg delloo si waat justice ba nga xam ne dafa fàttali jullit ñi ñépp ña nga xam ne ñoo jiitu woon di abu bakar ni siddiq ak omar ak uthman ak ak ali ibn abi talib kooku ki ko def mooy omar ibn abdul aziz kooku ku ñu war di fàttaliku la waaw su fekkee ne daw dawla amawiya dafa nekkoon la boo xam ne li ëpp ci eh, seeni ñi jiitu dañoo bare ay caaxaan yoo xam ne maanaam daanaka problème mu diine yépp ci ñoom la jóge loolu loolu history moo ko bind su fekkee kii ñëw na ci seen biir mu mel ni li ñuy wax téwél kéwél du tëb doom ji bëtt la waaw fii kéwél dafa tëb ba pare doom ji bëtt